Thank you. da nga ñëw Taphatine xaaral eh taawal xaaral nga taawal xaar gaay yi 过来。 Pagi Alkitab. Murni aku Pena, pena, yani Yine yine ay taw rek mooy suñu gàncax gi ñëpp ñoo bëgg ñëpp ñoo soxla gàncax préparation yi Fata maa ngi lay bëggee ay taw rek. mbër maa ngi nii. mais Togolaan ndaar lam fi àll. ndaaram fi Togolaan. ah on dangay rek. ay weer yu weex la def ndeysaan mu ngay retaan il est confiant. ndeysaan booy kay rek ngi noonu di ko xool. am tamit gàcce naa la waaye dana toll nii. jën tey de jën bañ a. ñoom gën a jën ndeysaan. père les morales les bons nga jën da ngay wax ak béykat yi ne ne ko la morale bon. ndeysaan mbër bu nekk mais mbër. ndeysaan ma ngay defaru. loolu su ma tuus la. bu fàtte dara dara dara ko maa ngi koy tuus. kii kii kii kii kii kii kii Abdou Fatah ndax yaa ngi gis sa mbër mi xool ndeysaan ndeysaan ay verre yu weex la def waaw ndeysaan il est serré ndeysaan il est serré bébé Diène ndeysaan l'enfant chéri de la Ndarata منم باگیم واندی نداور